Seni kaay kaa bi def kaa waa parti démocratique Sénégal kaa bu Karim Wade moom la l'observateur xëy di kaa ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ci jamono ji ñuy waajale élection présidentielle yi ci réew mi candidat yu bari ci leader politique yi di yëglu waa parti démocratique ñoom seen candidat bi ñu tànn taamu ko ne moo leen di taxawal ci élection présidentielle yu 2024 mu di Karim Wade yéenekaay bi ne nañu boobee ba léegi kenn gisu ko ci réew gis ne parti démocratique Sénégal kaa garaaw la bu nekk ci koma te seeni borom buñ ci jugul mën nañ ci am yeddaange Ousmane Sonko mi ñu doon yedd démb ca Yoff xibaar bi moo nekk ci xët mu njëkku la Sénégal journal bi dañu wax ne njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko ma nga woon ca Yoff démb ci kaw ngan gu tënk woon ci wote mam Seydina Limaamu Laay bañ fa doon màggal fan yi Mouhamadou Lamine Laye ma doon wax ak moom xamal na ko ne ñun jàmm la bëgg Les Échos feelu ko moom it ba bind ci xët mu njëkk ne Mamadou Lamine Lay wax na ay dëggam kii di Ousmane Sonko jàmm bu ko defee saw ñooñ bàyyi woote jot ñu woteel la Walf kilifa diine ñoo ngi dëkkee di wax ak way politiciens yi waaye liñ leen di wax dafay mel ne luy dugg ci nopp ndeyjoor bi bi ñu koy càmbaral président bu mouvement Macky encore di Samba Sall maire wax ji wax ji moo di moo joxul cër benn kilifa dina ci réew mi ay pexem ay projet moom Ousmane Sonko moo di yàq Sénégal te loolee tuut na ci ndax réew mu mel ne Sénégal ay kilifa yu mag te sell tëdd fi réew mu ni mel ku ko bëgg a yàq yaa yàqu tur bi nañu te borom mouvement Macky encore yamu fa moom nee na waxul waxi candidature président Macky Sall ci élection présidentielle 2024 yi li mu bëgg nee na mooy ñu ànd ak Macky Sall ba ndax fi réew mi toll jamono toll fi ak li mu liggéey ci Sénégal bi mu fi folo ak léegi loole rekk war naa tax mu des ci boppu Sénégal wéyal plan Sénégal émergent bi mu fi indi jëm 2035 2024 incertitude maanaam ay jiixi jaaxaaki xiini mi ne yu dul jeex bés bi le jour gis na ne moo am ci élection présidentielle yi ñu jëm ndax dara leeragu ci li leer ba leer tit bi nee nañu moo di opposition bi Macky Sall li mu bëgg mooy nelawal leen ak waxi troisième mandat yi ñu nekk cay wax ba fàtte lijjanti coowal parrainage beeg coowal code électoral bi député yi yooyu askan wi mer nañu lool journal Life moo ko bind ci xëtamu njëkk Sud Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba dañu xamal ne li metti bi doxee moo leen neexul le témoin nañu ki ñu ko jiiñ nag mooy président nañu mu jiite assemblée nationale bi baaxul santul yàlla ñoom député yooyee fare ci langu yeewi askan wi bi nee nañu ginnaaw toogaanu ñaxtu bi ñu bëggoon def ci buntu assemblée nationale préfet aayi leen ko terewul def nañu ko bañ ci noppee toftal nañ ci ab jonog taskatu xabaar yi fa doon jéebaane ni assemblée nationale di doxe ŋàññi nañu président assemblée nationale ñi mu jiite assemblée enquête dina nañu dem nañu ca bay wax ne démocratie amul dëgg di Assane Gueye bi nee nañu mooy ki defoon ab vidéo di ca wax ne bés bu fi ab procès public amee ci diggante Adji ak Ousmane Sonko moom dana rey Adji Sarr bi nee nañu beneen mandat dépôt mi ngi koy yot